ñu siyaar leen bu baax a baax gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee ñi ngi ñaan mu jëm kanam ISCO Barcelone door na ay waxtaan yu am ma am solo waxtaan yi sax fecc ma léegi mu ànd ak Bara Mbaye lu ne nga xam ni gardien boobee muy wéy di nekk ci camp yi gërëm nañ leen encore une fois ñaan leen ngeen def seeni i yow mi ko def ba pare cant ak ngërëm ñeel yow mi ko defagul ñi ngi lay daagaanu nga def ko léegi ndax abonnement yooyu dana tax lu ñu dugal nga man koo coppati bu baax a baax Isco mu sol moyob Real Madrid sol moyob li nga xam ni mooy Real bitis loolee bu 15 heures 15 jotee ci canal plus sport moom ngeen di am man koo jariñoo ci kanam tuuti match la boo xam ni bu ama am solo waaye compo officiel bi nga xam ne jàppoon na ni dana am lu ñu ci sensé daanaka compo boobee day wéy di nekk gardien bi nga xam ne daanaka mooy lien mooy nekk ci li nga xam ni mooy camp yi ba tey waaye Carleton euh, Ancelotti weddiwul ki nga xam ne mooy Aladji Malick TV ci attaque bi mu doon joxe mooy attaque bi Brahim Diaz ak Rodrigo euh, faux neuf mu jox ko ki nga xam ni euh, moo nekk kii la di Bellingham loole tamit daanaka moom la teg ci taabal ji Fede Valverde Toni Kroos ak Modric ñaari màgget ak benn xale bu ndaw moom la boole Mendy ak Alaba la def Mendy la def ci côté càmmoñ Alaba Rudiger ci digg bi Lucas Vázquez mu def ko ci li nga xam ne mooy côté ndijoor bi maanaam bu ñu xoolee défense bi moom da ko sibat ba mu set wicc ci défense boobee bariwul sax lu mu koy def dëggantaan ci li nga xam ne mooy bile saison ci compo officielu première mi-temps waaye loole nag mën naa am moo ko doy ak tactique de jeu bi nga xam ni moom mii di paa bi laal na ko bari na ay paa yu mu teg nag waaye loole nañ ko mën a comprendre ndax mooy entraîneur Real Madrid ngeen gis ko Sao Félix ak Cancelo équipe bile di Barcelone président ba ngeen xam ko noonu ñu yëgal leen ko bu ngeen ko xamul woon bu ngeen ko xamee tamit yeneen information dana jëxee ko mooy commencé na aw waxtaan nag wu yaatoo yaatu ah, ci jamono yi ñu toll diggante Atlético Madrid ak Barcelone ak li leen di City waxtaan woowee nag ñu ngi koy gëstu bu baax a baax danañ leen ci indi ay leeral jëmi